saa su ne am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ ak réer aousu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala seydina wa mawlaana muhammadin wa ala alihi wa qadimihi wa sallama saana ilaahi bil munajaati wa badan ana idi anaati سانا إلهي بالمناجات وابدا لنا يدي أنهات دلا علي العلماء والهولياء ما لا يسال ودن والهولياء خسيدتي فاقت كسائد الكرام ولتقود أبدا خير المرام هدية مجيلة كل ملي كان مناسيا واسع ملي ما تواجه نصار الله li bi laa ilaaha illallahu maataaja nasaara laahu liyaa bi laa ilaaha illallahu subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuuna wa salaamun alal mursaliina walhamdulillaahi rabbil aalamiin barke borom Tuubaa auusu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw ba nu santee yàlla julli ci yonente bi salallaahu taala alayhi wa sallam di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool te wér ba naal bi mu yéenee liggéeyal maam ja sunu boroom sottal ko bu ngeen gisee jitaay bu tedd bii jitaay bu màgg bii jitaay bu rafet bii ngeen xam ni bis bu màgg moo dëgmal si muy bisub cant sëriñ saaliw di waa xidmatul xadim di amal fii ci daaru xuddoos bis bi nag moo dëgmal si moo waral jitaay bu tedd bi jitaay bu sell bi ah, bu ko defee nag ñu daal di jox sëriñ ba basiiru moom mi nga xaman si ni mooy woote ci Eh, eh, kàddu ko dayre bi ñu jox ko kàddu mu yëkkati bisimilah. wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin bokki jullit yi bokki taalibe gannaaw ba nu sante yàlla julli ci sangu sang yi sallallahu alayhi wa sallam santaat sunu yaakaar tey ak ëllëg Seyxul Xadim ngi leen nuyu kenn ku ci nekk di leen balu àq te di leen balu àq mbokk yi bu ngeen gisee jotaay bi bu ngeen gisee jotaay bu tedd bu màgg bi ngeen xam ne bis bu mag dëgmal si na bis bu tedd waaye bis bu am wàcc waaye ci yoonu lislaam dëgmal si na muy bisub sant Serigne Saliou bi nga xam ne waa daayira xidmatul xadim soppee Serigne Saliou dañ koy amal at mu nekk loolu moo waral jotaay bi ñu war koo woote waaye nag woote bi dañ ciy jiital sunu kilifa yi nga xam ne wolof day faral di wax naan feccum liir bu neexee nday jaa jàpp ca wagg ya kon ñoo ngi koy woo sunu kilifa yi di ci jiital Serigne Massiyar Bakhoum mi nga xam ne ci ëttam lañ yaroo ak sëriñ Moustapha Sey ñoom ñi nga xam ne suñuy kilifa lañ te lépp lu ñuy nekk rek ñu di ñu ci gunge kon ñoom leen ci woo bu baax di leen ko fàttali di leen xamal ne bis bi kat seenu bis la ñoom ndax ñun lépp lu ñuy def rek dañ leen koy defal waaye ñoom ñooñu yilif ñoo yilif lépp lu ñuy def tamit ñoom ñoo ñoo ñooñu ciy jox ndigal kon ñoo leen koy fàttali bu baax a baax a baax bu loolu jàllee tamit ñu koy fàttali bu baax sunu jur yi nga xam ne ñoom lañ nekkandool ci koñ bi te ñooñu buñ ci tuddee Serigne Omar Sall ak Serigne Hamdi Fall ak Serigne Cheikh Ka mi nga xam ne ci buntu këram la liggéey bi amee ñoo ñooñu rek dañuy yóbbaale ñi ci des ñëpp kon ñoo leen ci woo di leen ko fàttaloo di leen ko bu baax baax a baax ngir ñu gën ko bàyyi xel waaye tamit bu loolu jàllee tamit ñu di ci woo sunu mbokk yi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk ci lu ñuy xëy di ci gont muy toolub sunu borom bii di alquranul karim kon ñoo ngi ci woo mbooleem daara yu nekk ci biiru koñ bi te buñ ci jiitalee daara Serigne Moustapha rek day di yóbbaale ñëpp kon ñoo ngi leen ci woo bu baax a baax di ci woo daaray Serigne Abdourahim Mbaw ak daaray Serigne Modou Diakhaté ak daaray Serigne Mahmoudan Seck ak Serigne Bassirou Diané ñoom ñëpp ñoo leen ci woo ngir ñu bàyyi ko xel bu baax a baax comme ni nga xam ne noonu lañ ko daan àndee mu nekk ñoo leen koy fàttali di leen ko yëgal te di sàkku ñu gën koo àndaat bu baax a baax a baax waaye tamit di ci woo mbokki kuréel yi nga xam ne daa nañ baaxoo ànd ak ñun at mu nekk te buñ ci tuddee daaray saalihina gi nga xam ne ñun ak ñoom sunu borom moo ñu boole dañuy yóbbaale ñëpp kon ñoo leen ci woo bu baax a baax di ci woo waa kuréelu ahlu nan gi nga xam ne at mu nekk ñoo koy ànd ak képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci xasida rek ñoo ngi la ci woo ngir nga bàyyi ko xel bu baax a baax ndax bis bi kat bisub Serigne la waaye Serigne Saliou moom Serigne Saliou ñëpp rawat ndaw ñi kon ñëpp ñoo ngi leen ci woo ngir ñu gën koo bàyyi xel bu baax a baax waaye tamit di ci woo sunu mbokk yi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo nekk ci koñ bi ñu nekk ay daayira di liggéeyal Serigne Touba ci biir koñ bi kon ñoo leen ci woo te buñ ci tuddee daayara jaalibatul maraaxib bu soppee am Amsatu ak daayira soxna jaara bi nga xam ne moo nekk ci koñ bi waaye tamit ak daayira kennal Serigne Touba bi ñëpp dañ ciy daal di duggaale kon ñoom ñëpp ñoo ngi leen ci woo di leen ko fàttali bu baax a baax di wax ne bis bi kat seenu la dañ koy dañ dañ leen ciy jiite rek waaye ñun ak ñoom ñoo ko bokk kon ñoo ngi leen koy fàttali bu baax te di leen ci woo di ci woo képp koo xam ne day liggéeyal Serigne Touba waaye tamit képp koo xam ne da dund Serigne Saliou da ngaa bëgg Serigne Saliou ñoo ngi la ci woo ndax bis bi kat bisub Serigne Saliou la kon ñoo ngi ci woo ñëpp waaye tamit di leen fàttali bu baax a baax rek bis bi ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo defee at mu nekk noonu lañ koy amalewaat rek ndax Serigne Saliou moom képp koo xam ne xam nga ko xam ak dundam ndax Serigne Saliou dundam génnut alxuraan ak xasida kon nag ñun bu buñ jógee di ko wooteel bis ca loola rek ca la ñuy wëy kon bis bi bisub alxuraan la bisub xasida la waaye bisub salaatu ala nabi la kon ñoo ngi ci woo ñëpp bis bi nag ni muy tëddee bu nu xëyee danañ amal njàngum alxuraan ba ba bëccëg bu ko defee ñu séddale bernde yi bu demee ba guddi gi nag ci la ñuy tàmbale njàngum xasida mi njàngum xasida mi tamit daanañ faral di ko ubbee ay kaamil alxuraan ba léegi ca loolu rek lañ nekk njàngum xasida mi tamit ni muy demee njàngum kuréel lay doon ak njàngum rajas waaye tamit di fàttali bu baax a baax Serigne Jiili moom Serigne Son bu koso nga xam ne at mu nekk moo ñuy defal waxtaan wu am am solo ñoo ngi ko koy fàttali bu baax a baax ndax ñoom kat moom kat kenn la ci ñun kon ñoo koy fàttali di ko yëgal baax a baax di ci woo képp koo xam ne daal kuy kuy bëgg Serigne Saliou rek ñoo ngi la ci woo bis bi nag alxamis lay doon le 26 mars di tombeeg buñ Kazu Rajab bi am ñeenti fan kon ñoo ngi ciy woo ñëpp ngir ñu bàyyi ko xel baax a baax di ñaan képp koo xam ne teew nga fa rek yàlla nga daje ngërëmul Serigne Saliou wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Bass kàddu yi am na solo lool su ko defee ñu jox Serigne Jaam mu woote ci kàddu xidmatul xadim Serigne Jaam bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu euh, kilifa yi nga xam ne ñoo fi jaar te jàllale fi ay kàddu ku mel ne sëñ Bassirou Ka macha allah. kaddu yi rafet na trop euh, matale na ak sëñ Jili ma macha allah kaddu yi rafet na lool. waaw comme ni ko sëñ Basiiru sëñ Basiiru mi fi jaar comme ni mu ko waxee rek man nag damay woote ci turu xidmatul euh, xadim di leen fàttali liggéey bi nga xam ne moom lañ baaxoo amee moom lañ baaxoo am euh, buñ Kazu Rajab ba noppi liggéey bi nag fi mu ne nii tàmbali nañ ko léegi nag man damay woote ci turu xidmatul xadim ñi nga xam ne ñoom laa bokkal liggéey bi. waaw mooy ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo bokk kuréel bi euh, ñi nga xam ne ñoo fi nekk ak ñi nga xam ne ay nekkuñu di woote ci turu Xidmatul Xadim ñi nga xam ne euh, ñoom la euh, bokk liggéey bi di am kontaan di am mbégte ci gis niñ taxawee ak niñ doxee wax dëgg fa yàlla liggéey bi suñu tubaab moom moo deme nii da xool ci bii jàll rek ak ak ak bii nii nga da ngay xam ne bii jàll ni mu tax niñ ko taxawoo ak bii nii maanaam différence bi dafa bari lool nga xam ne kon liggéey bi suñu mooy doxee noonu même cant yi da ngay xool bañ ko tàmbalee def ak léegi bi mooy euh, sixième édition xam nga loolu kon am na solo te da ngay xool cant gu jàll gee ca topp da koy dàq moo koy gën a neex lépp li ñu ko may suñu farlu la suñu góorgóor la suñu bëgg liggéey bi la waaw ñun ñi nga xam ne ñun ñoo seeq liggéey bi doon ay gone yu ndaw ñun ñi nga ñoo yam ñun ñëpp ay gone lañ ay tuut ñu tax a jug mooy euh, liggéeyal Serigne Saliou ci euh, alxuraan ak xasida ak ci def lu baax ñun ñu nga xam liggéey bi lépp ñu ngi ko tënk ci jàng jàng alxuraan ak xasida comme ni ko suñ Basiir waxee rek buñ àggee ba ca bis ba ñi nga xam ne ñoom lañ ànd liggéey bi niñ koy taxawoo taxawu bu rafet taxawu bu baax muy ñëpp seen bëggante ak euh, fonk liggéey bi euh, di jàmbaare lool di leen wax ne nañ gën a góor góorlu ci li nga xam ne moom lañ séeq buñu àggee ba ca bis ba euh, nañ bu ñu àggee ba ci bis ba nañ ko nañ ko ku ci nekk ci ñun na ko jàppee comme yëfi boppam na nga ko ko na nga góorgóorlu te xam ne liggéey bi suñ tuwaa sëñ Saliou moo ñu ko jox ñu di ko ci liggéeyal suñ noppee euh, góorgóorlu waaye suñ noppee liggéey rek dana ko jël joxaat ko ci teg ko ci yeneen i loxo kon ñoom comme ko ñun yàlla denk nañu ñu koy liggéeyal nañ ci góorgóorlu te xam ne li ñu yor du ay caaxaan du ay fo liggéey bi sëñ Saliou lañ moom lañ engagé moom la ñuy liggéey gis nañ farlu gi niñ ci farloo nag gis nañ ko wallaay lansi waxuma la man mais ñun ñëpp ci ku ci nekk ci ñun bëgg gi moom euh, ci dafa nekk ci xol yi wallaay lansi ndax bu bis bi euh, dëgmal see bu bis bi ñëwee da ngay gis koo ci tuddal bis bi rek day ree ak mbégte day ne ci kanamam loolu ak bëgg rek moo ko waral kon nag nañ farlu te góorgóorlu ñi nga xam ne ñun ñi nga xam ne ñu ñun la yàlla dénk liggéey bi ñu yaakaar ne ñun ñoo koy doxal ñun ñëpp a ci kenn ku ne jàpp ne yaa doxal te nga góorgóorlu waaw di ci woo ñi nga xam ne ñoom nañ bokk liggéey bi te suñ borom dogal na seen i jëmm tuxu ba nekkatuñ fi euh, ñu ñu ngi leen ciy wow di leen yëgal bis bi nañ ci daan taxawoo yi jàll ak yi ci topp yëpp nañ gën a góorlu te nañ gën a góorgóorlu te fonk bis bi te jàpp ko waaw bis bi nag bu ñëwee ne ko sëñ Basiir waxee rek noonu dong la programme bi tëddee bu ñu xëyee dinañ jàngi kaamil bu ñu demee ba toll ci waxtu waañ dinañ euh, xewlu bu ñu demee ba euh, julli timis ba noppi fa la liggéey bay tàmbalee ñu tàmbalee ci euh, kaamil yi la ñuy njëkk tàmbali jàng alxuraan ak jàng xasida ak jullit yi julli ci yonent bi ay jàngkati kuréel yi jàng waaw noonu dong la bis bi tëddee lépp génnut liggéey bi Sëriñ Tuubaa lépp génnut bëgguk sëriñ bi nañ góorgóorlu te fonk liggéey bi te xam ne bañ ko tàmbalee dox euh, bañ ko tàmbalee def ak léegi wallaahi lancim at mu ne man seetlu naa ñëpp it dañ koo seetlu at mu gën a neex day gën a day a baax wallaahi lancim te loolu suñu góorgóorlu dong la suñu farlu la dañ gën fonk liggéey bi suñu tubaab bi nga xam ne dañ koy defal suñu saaliw euh, ñi nga xam ne dañoo génn suñu borom dogal ne nekkuñu fi ñu ngi leen di fàttali bis bi ñu ngi leen di woo ci bis bi ñu ngi leen di wax ne bis bi seenu bis la bu kenn nekk fenn ba bis bi euh, nga di ko fàtte wala muy nekk ci leen na na la bis bi ñor bis bi doon sa yittee bu ko defee Euh, comme noonu rek dañ doon soññee ci turu xidmatul xadim ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp suñ Basiiru kàddu yi am na solo lool kon boo ko defee jërëjëf waaw jërëjëf sëñ daam kàddu yi am na solo lool su ko defee ñu jox soxna ab sa mu woote ci euh, turu xidmatul xadim soxna yi mu woote soxna ab sa bisimilah bisimilah ahousubillah min aseytaani irajim bisimillahi rahmaaniirahim allahuma salli ala seydina muhammad wa sallim euh, bu ngeen gisee jataay bu tedd bi yoo xam ne dañuy waajal cant Serigne Saliou Mbacké ñuy woote ci turu xidmatul xaddim muy mbooloo mi nga xam ne dañoo dajaloo di sant Serigne Saliou fii ci Daaru Xuddoos ñuy woo mboole mbokki soxna yëpp mbokki soxna yi ñu bokkal koñ bi yëpp di woo képp kuy wax ashadu an laa ilaaha illallah di woo képp koo xam ne soppeeb Serigne Saliou nga mbokki soxna itam bu ñu ñu leen koy fàttali bu baax a baax bis ba le 26 la sixième édition sant Serigne Saliou incha allah fii ci Touba Daaru Xuddoos bis ba ñëwee ñoom ñëpp ñu génn na farlu ci def ci fësteef ànd ko ñun nañ ko daan àndee ñun rafet na macha allah yàlla yëpp waaye tamit ñu gën cee góor góorlu bu baax a baax a baax képp koo xam ne yaa ngi dégg suñ kàddu rek ñu lay woo ci bis bi salaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum wa barakaatu yéen bokk jullit di maa ngi leen nuyu di leen di rafet lu teewaay bi bis bi nga xam ni man sax ba ma ci dalee ñëw yàggut waaye gis ni ñu doxee gis ni ñu bëggee sëñ bi. moo ma ci dugal wallaahi lancim ren nag ñu tuddee ko jàmbaar yooyu nga xam ne mooy Sëñ Fallou Ka ku ne xam ne ne bëggoon ak moom Sëñ Saliou yéemi woon na lool bokk na ci fondement bis bi mu jóge fi ren moom lañ ko tuddee di ko ci fàttaliku di ko ñaanal waaw ñu ngi ko ci ñaanal bu baax a baax a baax moom nag ren moom lañ ko tuddee di ku baax ku jàmbaare woon ci liggéey bi ku bëggoon Serigne Saliou wallaahi ku ko bëggoon lool moo tax nag bis bii ren ñu ne nag ñu nañ ko ko tuddee ndax lu yenu na waaw lu yoon la ndax koo xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa rek ko ñoroon wallaahi lancim waaw di fàttali ko tamit suñu ñaari Talla Diouf ak ki nga xam ne moo fi jóge fan yi Moodu ñu leen ci ñaanal bu soobee yàlla ci bis bi waaye Sëriñ Fallu ko ren moom bu soobee yàlla moom lañ ko tuddee asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw bis baa ngoog le 26 la buñ kasi rajo bee ba ci alxames ga képp koo dégg nga xam ne loolu mooy sa woote ñu ngi ñaanal Sëriñ Muntaxa mu yàgg fi loolu te wér wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa حمدي وسكري لمن كل به سرام لو أريد دون سوتر عند سرسرام حمدي وسكري لمن كل به سرام لو أريد دون سوت الحند سرسارا لو سناء وريد وان بلا سقات مسقد من بني ديمانا أنصارا لله منها تحرنا وفيها جمع من شارم إنا لسنا إلى سرسار خلق صدو سيارة فرخ دارين أو سارا